dox en ce moment mooy ñoom ñëpp nee nañu bawuñu grève de la faim bi ñi nekk ci biti nañ jouer seen rôle ñoom en interne ñu ngi def seen ci wàll woowu la ne ñun am nañu une très grande responsabilité devant l'histoire parce que nous sommes encore libres ñun nous jouissons maanaam mën nañoo dox suñuy soxla mën nañoo poser ay actes ñun ko mënul tey te ñu jàpp leen. te nekk ca boobu di président Ousmane Sonko ñoom ña ngay xeex nañu mën a xeexee très affaibli nanguwuñu lekk te ñoom ñëpp tànk président Ousmane Sonko ba wala dañu battre président Ousmane Sonko ñëpp xam nañ nitu principe bi mu doon ñun ñii taxaw naan na ko baax bu mu ko baax quel est notre lan mooy suñu mission lan mooy suñu responsabilité devant l'histoire naka lañ war a taxawee dañuy toog naan na ko ba alors que nous avons la possibilité de nous lever et de dire non est-ce que dañuy toog naan lu président Ousmane Sonko def par ci par là ñu koy laaj boobu ba tey ce matin c'est vrai la réponse mooy ku toog juróom ba juróom benn fan lekk ko jarul sax ngay laaj na mu def xam nga ne deful nenn lu dul très affaibli mbir mi kay mooy ñun nan lañuy def pour génnee ko ci loolu génnee président Ousmane Sonko ci guuta gi ma Sall dugal ko ci lan moo ciy suñu rôle ñun naka la ñuy taxawee naka la ñuy réagir est-ce que dañuy toog dinaa nan la président Ousmane Sonko def est-ce que dañuy toog naan defu leen lii def leen la wala dañuy jóg xeex ko pour génneeku ci jafe-jafe yi mu nekk yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ ni ñu war a tax nu ñu war a taxawee tey pour génnee guuta gi nga xamante ne xale yaa ngi ceeg président Ousmane Sonko ñu nekk ca kaso bi yëpp nekk grève de la faim fi mu ne nii sonn lool lool lool. naka nañ leen di génn ci situation bi bu dee dañoo jàpp ne dañ naan ko bàyyil grève de la faim bi lañ koy génne ci situation bi ñun xamaguñu lan mooy suñu mission mission bi mooy xeex ba génnee leen ñoom ci li ñu nekk loolu mooy mission bi waaye mission bi nekkul naan président Ousmane Sonko nag gi bàyyi grève beeg na ci génn nañu dimbali par ci par la non loolu mooy ñun suñu lépp même en ci président Ousmane Sonko la ñu yaakaar ñun pour mën a régler suñu problème loolu mooy lan alors que la mu mënoon a def def na ko ñun suñu mission ñun nag fi mu nii ñun ñoo ci am aujourd'hui une responsabilité jël li ñu war a def def li war a def am fulaat fayda génnee ko ci situation bi mu nekk génnee ndaw ñi bi ñu nekk waaye taxaw naan ana président Ousmane Sonko na lekk na naan loolu mooy lan alors que depuis le début la mu waroon def moom def na ana Ousmane nu mu def jarul la juróom ba juróom benn fan ku ko teg lekkuloo ko di nga sonn loolu ña nga xamante ne yeneen détenu yi nga xamante ne projet bi la ñu gëm ña nga sonn loolu kon lan mooy mission bi tey toog ci biti naan noo nee leen ko na bàyyi affaire bi dafa ça veut dire quoi pendant ce temps nañu jël suñu fulaak fayda ñun ñu nekk ci biti jël suñu responsabilité génnee ko ci li mu nekk génnee ko ci jafe-jafe mu nekk pendant qu'il est encore temps parce que suñ ko defulee lu ci xew dans les jours à bis bu ñu nee Macky Sall itam ñun nañu interroger ñun suñu responsabilité lan la ñu def bi président Ousmane Sonko ndaw yi nekk prison.